gën a bëgg xaw ma yëgu fàtte naa sax samay man ko man damaa bëgg or li may wax nogoy nogoy daf may ree jaaru bi ma takk moo ma ko takkal bërki démb mais way doomam Seydina Mohamed dafa am doom tuddee ko Nabil Moustapha jëkkëram da koo yóbbu màkk mu yóbbu ndayam ni Seydina Mohamed su ma amee doom bu góor yow laa koy ma am doom bu góor tuddee ko xaatimu nabiyu kenn du moom sallallahu alayhi wa sallam man ko man de dama bëgg or waaw pel jee ba ba mu am deux semaines mu woo ma ni ma benn dafa am bu may dem dama bëgg nga dugg ci kii yu bi nga xoolal ma caq or bu fa gën a man ko yow caq bi nga takk barki démb ma estati ko pendo estati ko looy changé mun ma noo xew jàmbur ndeke man lay jëndal lu rek fexe na ba xam li nga bëgg laa ilaha illallah barki Cheikh Saad bu may tànn caq bu ma jël yónnee ko mënu ma bëgguma bi caq bu ma yónnee mënu ma bëgguma bi ba bi mu ma jëndal boobu maa ko tànn mun ma bii neex na ma kenn doo ko indi Sorano. dëgg la maa ngi taxaw kon bi wax ci man pour penda su ma ko yàqee goréew ma. maa ngi taxaw maa dugg ci oto ba. maa ko yóbbu maa ko way mu jooy ba dagg. yaa fekkee yal na njig laayam. sekk eh, ndaanaan bi mu ngi toog France ah, moom itam di seetaan. sama papa toog ma ma ngay yaataa yumbe tey. Cheikh Ndeye Diagne Guèye Bissory moom itam mu ngi ñuy seetaan mu ngi leen sama yaay bu baax ah, ñoom ñëpp ñu ngi ñuy